ay jaxaadim ñu jàll ci premier combat spécial bi gannaaw ba ñu defee seen ay débat déb ba noppi Petit Lo jógee écrit Rock Énergie ca Modou Lo Mama Lamine 2 jógee écrit Boy Sey ñaari xale lañ ya nga xamante ne bii ay ndaanaan lañu ay espoir lañu ay mbër waada lañu def nañ seen ay débat déb ba noppi ku ci nekk ki nga an ñi nga àndaloon ñu ngi ci biti taxaw di la xool fi mu toll mënuñu ci yow lan lu dul xool ni ma koy waxee bëre wàllub teen la xadim bamba lu mu metti metti gars yi ci biti la ñuy taxaw maa la ko wax ñi la doon jàppale ci contact ci biti la ñuy taxaw ñi la doon ñaanal ci biti la ñuy taxaw ñi la doon coaché ci biti la ñuy taxaw maa la ko wax yaag arbitre yi ak sa ak sa adversaire dong ci biir géew bi Petit Lo ngi noonu di cukki-cukki ma nga noona ma ngay def li nga xamante ne bi ay déplacement yaa ngay gis Mama Lamine ña nga koy xool ndax pare na ña nga koy xool ndax niin na wala niinul waaw gis nga am na luñ koy fomp ca gannaaw ga dafa mel ni yaram bi dafa xaw a niin Xaadim Bamba ma nga noona lamba nga noona lamb dafa doy waar trio magique arbitral baa nga noona Sitor Ndour Malick Diouf ak ki nga xamante ne bii mooy Malick Ngom ñoom ñetti ñooy arbitre combat yi tey Sitor Ndour Malick Diouf ak Malick Ngom Malick au carré la ñu am ci enceinte bi tey maa la ko wax ma nga noona Petit Lo ak ki nga xamante ne bii mooy Mama Lamine numéro 2 ki jóge écrit booy sëy ki ci des doomu Modou Lo la Modou xarañ Lo moo ko ngemb ne ko nekk ci man def naa ko ci yow jom ji nekk ci man def naa ko ci yow fulla ji nekk ci man def naa ko ci yow fayda ji nekk ci man def naa ko ci yow damal bëre daan ñëwaat doomu moo Lo la moo ma jaaxal waaw eh, daa mel ni Mama Lamine gañe na fole waaye nag xamuñu nag dañ koo dañ koo piil dañ koo piil wala faas laa ilaaha illallah Mama Lamine ngeen jàkkaar lool Petit Lo moo ñu woon gan Petit Lo moo ñu woon gannaaw Mama Lamine lañ jàkkaar lool ndeysaan nee naa la ca biir combat combat bu ndara métti. Aliou moo andi nga xamante ne mooy Petit Lo. waaw. Baye Jili Tarkindaa bi indi Mama Lamine. ndeysaan. laa ilaaha illallah. bàyyi leen laser maa ngi seen laser ci biir ci biir ci biir enceinte bàyyi leen laser yi. bàyyi leen seen laser nañ bàyyi laser Sénégal Égypte la may fàttali. waaye waaye ana Mohamed Salah waay. nañ bàyyi laser doy na waar. ana Mohamed Salah. Sénégal Égypte ndeysaan arbitre ba sifflé na Adja Matou. na seen diggante. journée Ndiambour production. ndeysaan tey dimanche 30 avril 2023. production woo ñu fi di gën koo xam ci Ilimane Lo. ñaari mbër yaa ngi lewtoo. ñu ngi déglu wante. Mama ngeen jàkkaar lool. ki doomi Modou Lo ja ndeysaan xale la xol ko ni xal mu eh, yuuge moo ma jaaxal bu lewaatoo rek sa xel dem ci papa ji waaw waaw ndeysaan cokkaas na léegi wante dalul Petit Lo na maama la mi ne tekk di ko déglu mu dagg bi def déplacement eh maama Lamine na jaaga Petit Lo cokkaas bi ak bëri coow ak bëri tension combat xelal la eh Petit Lo cokkaasaat na Mama Lamine ne tekk eh, door na ko mu fayu. Petit Lo door na rof na ko caxabal Petit Potiloo waaw ma ngay joxoñ ca kaw. am na lu muy wax Potiloo rof na ko ca xabal. jël ba rek waaw waaw tooj na. tooj na daan na ko ba noppi tooj. Mama Lamine mi ngi soog a daanu ndeysaan. Mama Lamine mi ngi soog a dégg mu ñor. mama ngi doog a dégg. daanaanu ko daan nag. Potiloo ngi noonu ndeysaan. ma ngay julli timis lay julli wala gee. moo ma jaaxal moo jaaxal ñëpp. timis lay julli wala gee. nee na yàlla moo fi ne ci la jóge na yàlla rek moo fi ne ci defet bu am ndam day kontaan. ndeysaan papa ma ngi noonu. matu nee na ma papa ma ngi noonu. waaw kii mooy papaay say jàmbaar. waaw waaw déedéet. non non non sol di papaay say jàmbaar. ndeysaan waaw kee mooy seen papa. ndeysaan ndeysaan ban laa ko ndeysaan xamul lii jurel dafa fo fo laa ilaha illallah oh. waay maama Lamine tey am waay maama Lamine tey waay mais loolu la lamb nee na la oh. bu bu fàttali da doon daan ñi mu doon daan nan lan doon def waaw maama am na lu ko naqari ndeysaan maama Lamine am na lu ko maa la ko wax Xaadim Bamba ma nga koy yëkkati muy bañ maama Lamine ñu ngi koy yëkkati muy bañ ndeysaan làmb ngi nii ndaanaan la nag ndaanaan la jàmbaar la waaye ki ko daan da ko war na koo daan waaw waaw waaw waaw saa Touba nga noonu potiloo song na ko potiloo song na ko ndeysaan mel ni ànd bu yàgg la ca Modou Lo ba ci ba ci ba ci saa Touba ñoom lay àndal ndeysaan ma nga noona wogos na daraja ma ngay dem cay saa Touba saa Touba nga noona waaw waaw Xaadim Bamba